sànq la te dinaa ci joxe benn misaal rek ndax lu sori la ci man lu tooyal sama xol la mooy gàtt gii nekk sama gannaaw kii mbokk yi li tax mu doon loo xam ne dafa sori ci man gis ngeen gàtt gii ni mu mel ni mu rafete gis ngeen ni mu toll kii sëñ Cheikh Saliou Mbacke yal na ko yàlla yokk wér-gu-yaram yal nañ ko fi yàlla bàyyi lu yàgg yàlla na ku yàlla yokk ko ci bépp fànn moo ma jagleel gàtt gi keroog bi ma señ Moustapha woowee ne ma sëñ Cheikh nee na am na loo xam dala koo jagleel waaye gàttuk barkelu la te mu defoon ko nii daaw duguleet ma ne ko ah loolu de neex na ma lool waaye su ma sañoon na bàyyi ma ñëw jëlsi ko ma yónnee oto mu jël si ko mu ne ma déedéet moo koy dawal moo koy dok dugal ci oto andi ko ba sa biir kër moo tax gàtt gi am valeur symbolique bu am solo ci man muy gàtt gi nga xam ne moom lañu fas yéene bar barkeloo rek ni ko sëñ bi waxee nii mu ko defee du gulleet wax naa ko ndax defaat na ko keroog bañ may agressé ci corniche ba ba tax ma mujj nekk ci hôpital tëdd fa ay fan doon faju dafa yónni sëñ Abu jox ko enveloppe boo xam ne un million moo ci nekkoon ne ko nee ko enveloppe bi ñaan la ne ko téye xam naa li may wax nii sax bëggu ko ndax bëggul ñuy wax ci jëfam muy woon it lu tooy sama xel sama xol car may génn ci hôpital ba ci enveloppe boobu laa sàkkee bi ñu ma defaree sama facture muy sept cent et quelque mille ma fayee ko ko kon maa ngi koy yokk ñaan di ñaan sénégalais ñu ñaanal ko ba lépp loo xam ne ay naalam lañ ak ay mbébét itam yàlla na ko yàlla yombalal ànd ak nag saa suñu gisee maak moom su ma demee seeti ko bu ñu waxtaanee bu may dem dugal sama loxo ci su may dugal sama loxo ci poche mu ne ma sa loxo boobu de bu mu génn ndax yow man maa war a sàkk di la jox di la jàppale waaye yow waroo yëkkati di ma jox kon jërëjëf Mbàkke suñu xol sedd na noonee ñu ko seddalee suñu xol seddee ci sëñ Abdou Mbàkke bi nga xam ne wax naa leen taxawaayam yeneen gàtt yi ngeen gis ni yépp ci loxoom la jaar moom it ba egsi ci man ak ay koppar yoo xam ne jaar na ci loxoom egsi ci man suñu nit ñu baax ñooñu yàlla ñu fi yàlla bay naka noonu it e, yéene gi nga xam ne ba léegi sénégalais nga ko am ci ñun ma lim ci de lenn ci ay kilifa ni ma ko waxee ci sëñ Abdou Mbacke Sakh mu noon ko wax ci ñeneen ak ñeneen noonu la amee it suñu kilifa suñu sëriñ suñu xarit suñu wëlëre di sëñ Fàllu Chouaïbou sëñ Fàllu Mbàkke ibna sëñ Chouaïbou Mbàkke nga xam ne yéene bi ñu bari am ci ñun rek te yëgowuñu ko moom la am ci ñun ba tax mu tànn ab gàtt goo xam ne gu mat lañ ko la ci bës bu ni mel gàtt goo xam ne moo ko yaral boppam yafal ko ba mel ni mu mel mu yónni ab ndaw nekk ñëwal jël ko dem yéetal ma ko Ousmane Sonko yooyu di ay gest yoo xam ne daf ñoo touché ndax suñu kilifa yooyu yëpp ñu ñoo di jël di dem di leen jox ndax xam nañu seen njaboot ni mu toll xam nañu seen euh, charge ni mu toll koo ci gis rek li mu yor ci ay nit yu mu yor ci ay daara li mu yor ci ay ndongo yu nekk ci biir ay daara te kenn génn ci dem sa yelwaan ñoo leen jox ndékki añ reer ñu waroon di comp ñun di leen jox waaye ñu am yéene yu rafet yu mel noonu ci ñun ba saa su dara amee ñu yëkkati seen alal wala yëkkati seen matériel daal ñu ciy xalaat daal teg ci loxo nit mu ñëw ñu jàpp ni nag loolu ëpp na ab gàtt gu ñuy may rek waaye ab barke layut goo xam ne ñu ngi koy teg suñu loxo di ñaan yàlla yàlla nangu ko yàlla sàmmal ñu leen yàlla wattul ñu leen yàlla may leen yokk leen wér bu yaram la bàyyil ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne mënuma leen lim ndax ku lim juum ay léeg-léeg seppi rek joxe quelques exemple mbokk yi tabaski feet bu rëy rëy la waaye nag nañu fàttaliku lan mooy cosaan ba kenn ku ne bu demee ba tër xalam teg paaka war naa xalaat lan mooy cosaanu tabaski ñu war cee jàng jël jëlit ay jàngat yu am solo sama àll ba nag soriwul moo tax su ma juumee suñu nit ñu baax ñoo ñuy déglu ci rajo yi mu fassirun yu mag yooyu ñoom Oustaz Alioune ñoom Serigne Iran Ndaw ñoom Oustaz Tayib Socé ñoom Oustaz Assane ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo ñu gën a xam téere bi di ñu ko jàngal ay at yu leen di déglu su ma juumee rek nañ ma gàgganti te xam ni politicien bu soblaa rek ba di wax ci lu lu lu xaw a lu ko xaw a sori waaye tabaski cosaan bi mi ngi jóge suñu maam Ibrahim ak doomam ju baax jooju nga xam ne mooy Ismaayil ñëpp xam ne Ibrahim dafa dund ba nekk mag torop te yàlla may ko doom